waskuro fàttaliku leen is jaalakum bi yàlla defee xulafa ngeen wuti ci suuf min baadi aadin gannaaw nitu aad wa bawaakum yàlla saxal leen filaardi ci suuf te taxisuun wala yàlla wàccee leen wa bawaakum wàccee leen filaardi ci suuf te ngeen di jàpp min suhuliha min suhuliha ca suufam sa suhul mooy suuf soo xam ne dafa talli ñu koy war a mën a bay looloy suhul ngeen di ci jàpp usuuran ay ngeen di suuf su talli sa ngeen di ci tabax taax watanitoo na ngeen di yett aljibaala doj bu yootan muy néeg faskuroo fàttaliku leen ala lay xewli yàlla wala taasaw bu leen dox mufsidin na ngeen di yàq fi laa di ci suuf qaala tontu almalaw mboolo ma lésina ñi nga xam ne istakbaru rëy rëylu nañ min qawmi ci nitam ña lésina ñeel ñi nga xam ne ustudifoo doye da lef na leen ndax ñoo ànd ak saala ñu ne la liman amana ñeel ñi gëminum ci ñoom ataalamuun ndax xam ngeen ne ana sala naka saala mii kat ndeke mursalun ku yónni la loolu mooy waxee ni yéeg ji ku yàlla yónni ba ma indi kaw téef ngeen naan ah moo ndax xam ngeen ne ngóor si ndeke dañ koy yónni nee na moom day nee na dañ koy yónni min rabbi xaalo ñu ne innaa ñun day bi maa wóor si la bi liñ ko yónni mu'minuuna ñun gëm nañ ko xaala wax li si ne ñi nga xam ne istakbaru ñoo rëy rëylu ñu ne innaa ñun bile bi lazi amantum bii li ngeen gëm ñun kaafiruuna fa àqaroo ñu na naaqata gëlëm nga waa taw ñu tooñ jéggi dayo anam rabbim ci ndigalal seen borom waqaalu ñu nga naan yaa sala itinaa indil ñu bi ma taidunaa ci la da nga tëkkuñu ko in kunta ndem nekk nga kay minal mursilina ci ñu yónni ña daanaka dañ ko saaga fekkee yàlla la yónni loo mën nga def ko fa xadathum dal leen di jàpp araj fatu yënguk suuf ga faas boo ñu mujj jaasi mi ne di way boof fi daarim seen kër ya fa tawalla yonente ba dëddu anum walis leen wa qaala ma nga naan yaa qawmi yéen sama ma mu ngoog dee ngeen laqad ablaqtukum man day jottali woon naa risalat rabbi yonente ak sama borom wa nasaxtu la woon naa biir lakum ñeen leen walakin waaye yéen laa tuxibuuna bëggu leen anasixiina way laaye biir bëggu leen ko mu taxu jëm ci eh, jëm ci yonti yàlla loot yonti yàlla loot moom rakku yonteeli Ibrahima rakku Ibrahima moo jur Loot kon Ibrahima bàyyi taxam la Loot fan lañ koy yónni woon ña ngi ko yónni woon ci juróomi dëkk yu juróomi dëkki Saadoom ya ca Baxarul Mayit ca penku Jordani foofa la nekkoon ba ko Ibrahima beree mu dem fa foofa nag foofa la bët yem ndax góor ña duñu denc jigéen góor góor rekk lay denc lootu nag ne ah yéen nag day jéggi ngeen dayoo te ngeen def li yàlla wax ñu lànk yemuñ ca lànk ga wante dañuy def bu loot amee ay gan yu góor ñu ñëw di leen lootu moo tax ñu tuddee mbir mi loot ndax li nga xam ne aw nitam moom la ñu daan def lootu nag benn bés Mikaayil amee melokaanu doomu aadama melokaanu waxambaane wu toyam toyam mooy waxambaane wu saxagul sikkim ñu am melokaan woowu wàcc jaar ci Ibrahim Ibrahima ganale leen dana ñëw ca kanam ñu lekkuñu Ibrahima tiit ndax ñii ba ñu ñëw ñaquñu taquñu suuf waruñu kon ñi duñu nit ñu ne ko ñun malaaka lanu duñ lekk waaye sonn nga ci ganale ñu ba wàjjal ñu aw yëkk wu ndaw sa jabar dana am doom mu ne waaw fu ngeen jëm nag mu ne ñoo ngi jëm ci nitu dañ leen di alak mu ne waaw nu ngeen leen di alagee te lóot nga fa te moom dafa gëm yàlla jibil ne ko bàyyi rek ñun ñun xam nañ ñi fa nekk ñun ñi fay dem kay xam nañ ñi fa nekk moom nag danañ ko musal ak ñi ko gëm waaye jabaram dana alku jibril ñëw ak mikaayil ba ñu ñëwee jabar ji waxoon na waa dëkk bi ne su ma saxaralee rek ngeen bu saxaree ngeen xam ne am na gan yu góor mu saxaral gaa yi yëw ba ñu ñëwee nag loolu dal di jàq lool tiit na gan ñi dugal leen ñu toog mu seen waa dëkk baa nga ñëw seen pënd di daw di ñëw ba mu ñëwee ñi ngër-ngër yi ku nekk ne man ci kee man ci kee laa loolu ne leen ay waay xanaa jubu leen ñi gan lañ ñu ñëw ci man di ma gane si xanaa kenn ci yéen ku jub nekku fi ah xam ngeen ne sori naa sama xeet su nekkoon tey Baabil wala Cham ca sama baay Ibrahim xam ne su ma meree ñu dimbale ma kenn du ma def nii ci gan waaye tàppuwuma tey ci géñu gu dëgër ndax man dong fi nekk ndax bëggoon woote woote bi yàlla Jibril daal di dikk ne ko loot bul jooy bul bul am lu la naqari gis nga ñun ñi du nit malaaka lañ gis nga sa nit ñi dañuy alku yow dalal di génn dëkk bi yaa képp ku la bu fi kenn fanaan fii bu guddi jotee dana am lu fi xew loolu dal di xelam dal di dal gannaaw bu leen yeddee nag gaa ñi ba dem dem na ba ne leen am naa sax ñaari doom yu jigéen su ngeen leen bëggoon ngeen yóbbu leen te bàyyi sama gan ñi ne ko am na nuy jigéen ci kër ga innaka la taalamu ma nuridu maa lanaa fi banaatika min xaqin soxlawuñu say doom am nañu jigéen ci kër ga innaka la taalam maa nurid waaye ba nga xamee ne nar nañ la ñu nar sama borom nar la mu nar ñoo ku nekk daal di rang ci kenn teeg kenn di ñibbi nag guddi la ñëw jant so rek sama boroom ne loot na nga gàddaay dellu Palestine fekk Ibrahim bu fi kenn fanaan te bu ngeen génnee sax bu leen geesu geesu ak dellu bu ko kenn def ku dellu si ci kër gi rek li jot gaa yi yóbbaale la ñu daal di génn na nga génn ak sa ñooñ bi qitain min al layli wala yaltafit minkum ahad dem leen fam du hay su tumaroon fi leen digal na ngeen fi jaar ngeen jëm Palestine loolu dal di génn ak ña ko gëm mu woo jabar ji mu lànk des na fa ak nit ña guddi jot na nag gan ñaa nga fa waa dëkk ba dikk nañ jibril daal di waa mbokki malaakam yi ma àndal ñeenti ma ñetti malaaka yi ma àndal mikaayil asrafil asrail mu ne gaa ay ca tàmbali leen seen liggéey malaaka yi tàmbali di di masa xar kanam yi nit ñi kuñ masa sa kanam bët ak bakkan nag nopp ak gémmiñ yépp a maase ñuy masa di dem ba ñu masa dëkk bi yépp ba kenn amatul loo xoolee wala loo waxee loo déggee loo gisee ñu bàyyi leen ñuy tëb di dal mu ne waaw ba mu gën a guddi ba mu gën a guddi nag Jibril déqati suuf sa yëkkati ko ba ca kaw mu walbati këpp ko la faroon kaw dal di far kaw ñooñu ñooy faroon su kaw ñooñu ñooy ñuñ benn ña moom la sama borom di wax naan wa luutan yow yonent bi jàngal luut jëf jooju nag alimaamu malikin nee na kuñ ko jàppee dañu rey dañuy rey sujet ba ak complément ba iza raaytu man yaamalu amala qawma luutin faqtulul faaila wal mafuula bu ngeen gisee ñu koy def ka koy def ak kañ koy def yëpp dañ leen di rey jam ay xeer ba ñu dee sama borom ne wala tan jàngal loot is qaala ba mu waxee li qawmihi ñaal nitam ña ataatuuna ndax da ngeen di dikkal alfaahishata lu bon la ma sabaqakum mosul leen a jiitu bihaa ci lii min aadin kenn loolu ñoom ñoom ñoo ko njëkk a sos ci àddina min al aalamiina ci bindeef yi innakum yéen la taatu na yéen a ngi diggal rijaala góor ña shahwatan bànneex min dooni nisaa yi ngeen bàyyi jigéen ñi ballu fi nekk antum yéen xaw mun aw nin ngeen musrifoona way yàq ngeen